waaw c'est un dossier difficile parce que on a eu depuis l'indépendance quatorze premiers ministres au Sénégal. PM mm. Abdou Mbaye mooy onzième. seize te boo seetloo bu baax Moustapha Niass lañ fi mës a euh, ñëw laaj ko sur l'histoire des six milliards. loolu fi la ñu fekk. bu ñu demee ba si biir. mu recule Idriss Seck ñu tuumaal ko ay mbir ba yóbbu ko si kaso. affaire chantier de waaw ñaan yàlla mu yem foofu rek quoi. que beneen PM bañ a duggaat kaso. <laughs> ensuite euh, mbir yi di dem tey PM Abdoul Mbaye dans l'histoire des contrats pétroliers li mu si xam yépp am na lu koy tere mu wax ka xëy na posture d'homme d'état moom mooy tax parce que homme d'état du lu muy xam yëpp lay wax. Hmm. Hadjibou Soumaré c'est un homme exceptionnel pour man ci jaar-jaaram ci dëgguwam parce que kenn mësu ko dégg ci benn détail nekk na fi directeur du budget tey mi ngi wax léegi nekk na fi directeur de banque nekk na fi ministre nekk na fi premier ministre bu ñu fàttalikoo bi Abdoulaye Wade dindee kii di mag Sall moom la ñu yóbbu woon mu ñëw j'ai réparé ñu yóbbu ko commission fi nga xam ne kenn moom mooy UEMOA alors donc ci wàllu xaalis traçabilité que législation xam na xam nga nguur gi itam loo leen mënti reproché euh, tey dañuy dañuy jël mbirum yoon téye ko man bi affaire bi amee dama dem toog ma delluwaat ci la code pénal sénégalais ma liiraat article deux cent cinquante huit je du ma ko liire par dama ni mieux ma bàyyi liggéey journaliste bu may def. lu tax. non parce que dañ naan la euh, diffamation tout déclaration même dubitative juge bi moom dafay jàpp ni que ni. déclaration la moom xamul question ñun journaliste li ñuy wax il faut mettre ça au conditionnel juge xamul loolu. moom li mu jàpp mooy ni que ni yow da nga def déclaration jëmale ko ci nit nit boobu corporation boobu kenn ku nekk su ñoom am na droit jóg interpeller la si euh, defal la citation direct ñu jël la yóbbu te boo demee mënuloo ko prouver mais ça de six mois à deux ans voire cinquante ans de prison boo ko xamee en tant que homme d'état da ngay taxawaat xool bu baax fi ngay teg c'est pourquoi ma ni nos hommes politiques dañu war di am staff même s'il a posé des questions. question amul ci affaire article 258 boobu déggoo ma ne déclaration dubitative juge bi du ko jàppee déclaration dafa lay jàpp ni que ni da nga def une déclaration à l'encontre de diw diw boobu bu la jël see yóbbu la porter la plante boo demee dañu lay laaj ne la yow lii nga wax fan nga ko teg parce que la perception elle est importante dans la tête du Sénégalais lambda dafa naan ah kii di Hadjibou Soumaré kat nekkoon fi premier ministre amee UEMOA xam mbir yi ni muy doxee xam mbirum koppar xam mbirum banque xam yëpp ni muy doxee bu ñëwee ba toog poser question bi président Macky Sall c'est parce que am na si loo xam ni wóor na que ni lii am na parce que nag aussi un homme politique ne parle pas comme ça ex nihilo da ngay préparer sa sortie mm-hmm. toog ni que situation bi ñu toll nii homme politique bu fii na homme politique yëpp poser question bu cinquante posé question bu fekkee question bi dafa laal Macky Sall laal honorabilité am laal honorabilité benn corporation mais da ku ñu si jël dañ la yóbbu te bu ñu la yóbboo le juge def parce que xam nga Adja c'est c'est c'est c'est quand je dis que c'est dossier difficile euh, PM mi ngi wax ni euh, staffu Marine Le Pen tey la ñu door ay réagir mm-hmm. mais en France dañ naan lëkkan ni un candidat à l'élection bu amee benn don bu ko privé defal bu dépassé sept mille cinq cent euros. Mhm. le juge mën na taxaw ni la ci n'es plus éligible. ça veut dire que même Marine Le Pen lii moom daf si am loo xam ne war nañ ko si wax bu fekkee satalul deram si mbir bi ni je n'ai rien reçu du président Macky ou de n'importe quel président à travers le monde am nga plus de 7500 yu ñu la may le juge français mën na taxaw ni que la élection présidentielle doo si bokk. d'accord et là on parle de 12 millions d'euros.